asalaamaaleykum ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi gërëm euh, sëñ Moustapha Amar ci invitation bi nga xamante ne nii def na ko tey te defewu ko dara lu dul euh, retrouvaille ak mbokk tax ko jóg te wax dëgg yàlla mu nekk loo xamante ne nii am na ci pas-pas am na ci ambition ba saa su nekk daal euh, mi ngi xool nu mu dajalee mbokk Darmanko yi mu nekk loo xamante ne nii saa su nekk maa ngi ko ci maa ngi ciy nawloo ci loolu ndax nit amul dul mbokkam xanaa rek di di am contentement ci moom di ko ñaanal rek sunu borom yeggale ko fi mu bëgg yegg ndax booba léegi liggéey bi rafet na mi ngi jàpp te bàyyiwul kon nag yàlla na ko yàlla jàppale ba fi mu bëgg a yegg rek suñu borom yeggale ko fa. mënu ma wax lépp parce que man moom euh, mënu ma wax ci kii waaye nag euh, dañuy bàyyi lépp. ci loxo yàlla sunu borom mu jàppale ko incha allah jërëjëf sëñ Moustapha ñu ngi am contentement bu baax ci yow jaajëf jaajëf. donc bisimilah rahmaani rahiim allahumma salli ala muhammadin wa sallim euh, ay baat la yoo xamante ne rek dañ koy jëmale si Cheikh Mouhamadou Moustapha kon ko tey dafa woote journée bu spéciale wala bo nuit bu spéciale muy euh, dîner de remerciement. Euh, cant nag boo bu am rek dafa am ci loo xamante ne si moo tax cant am maanaam cantu am dafa am lu ko lu ko lu ko lu ko fonde li ko fonde mooy ay jëf yoo xamante ni dafa jiitu woon dafa jiiti woon lii nii bis bi tey nit ñi nag dañuy wax souvent arabe dañuy wax naan euh, la sukran lal waajib maanaam nit bu defee li ko war jarul nga koy sant am ñeneen ñu ne non non cest à ki ñu war a sant dëgg-dëgg mooy ki nga xamante ne si dafa xam li ko war ba pare def ko Euh, journée culturelle des Darmanko nag dafa nekk loo xamante ne si toujours ni ma koy waxee dafa am ay aspects yu bëree bëree bëri yoo xamante ni daf koy développé muy muy muy aspect religieux wala muy aspect côté politique wala côté social wala lu mu mën ci doon te en plus que dafay nekk loo xamante ni comme sànq ni ñu ko waxee ci ci ci ci table bi. Euh, bis la boo xamante ni si tey dafay am lu muy joué am lu muy lu muy war a mën a représenter ci ci ci pencum Sénégal c'est-à-dire que mooy Darmanko yi ñëw indi li nga xamante ni si moom la ñu. am ci ci diine am ko ci aada am ko ci ay jikko am ko ci defar ci diggante diine ak ak ak nitu àdduna yi te sëñ Moustapha dafa nekk nit koo xamante ni si tey dafay doxee ñaari jéego yooyu mooy côté spirituel ak côté temporel te boo gisee dafa ko mate sëkk ndax mate sëkk gi mooy li li bu soobu li muy soobu soobu soobu si àdduna yàqalu ko dara diineem te loolu c'est très important mais li muy dugg dugg dugg si diine tamit xam na ban rôle na war a def ci àdduna te loolu mooy mooy ni l'islam bi doxee loolu mooy ni àdduna doxee boo gisee misaal euh, Moussa alayhi salaatu wa salaam sax euh, dafa nekkoon nag ñoo xamante ne si te yàlla dafa donte gëmuñu yàlla mais yàlla daf leen waxoon ni wabtaxi fi ma aataaka allaahu daal axira wala tansa nasiibaka mina dunya donc da ngay jël li nga am ci àdduna en plus que bul fàtte li nga am ci àlaxira en résumé loolu nag bu fekkee benn nit moo ko jël xam loolu lépp di ko doxal te xaaru ci kenn donc war na tey moom bu ñu santee tamit cant googu yëpp dafa baax rek dañu sant mais moom moo yeyoo sant gi yëpp kon encore une fois ñu ngi koy sant sant goo xamante ne si tàmbaleewul fenn yemul fenn cant la goo xamante ne si day law tasaaroo fépp waaye nag ñu ngi ñaan cant googu ko nekk ay avancement ci moom nekk ay ngërëm nekk ay ndam comme ni mu ko waxee sànq mi ngi koy wax daanaka lépp lu mu am da koy bëgg a bokk ak ñëpp maam képp koo xamante nit ku baax tamit dafay bëgg ba lim am ci moom nga am ko ci yow te loolu rek mooy àdduna loolu yàqu si mbaaxam dara mbaaxam kenn mënu koo wax ci benn jotaay wala ci ay minute kon sëñ bi ñu ngi lay sant am li may gën a def mooy maa ngi lay ñaanal baax a baax a baax li nga yéene sa xol bëgg koo jëmale ci sa àdduna yàlla na la ci yàlla defal lu kewes njort en tamit famille Darmanko li nga xamante ni seen maam baax yi liggéeyal nañ ko yàlla bu la ci kenn kenn ëppale barkeb Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ak ñu ngi ko àndal ñëpp vraiment kontaan naa merci beaucoup. asalaamaaleykum ñu ngi euh, nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di jox euh, ñëpp seen wàccuwaay di jiital euh, si nuyoo bi Serigne Moustapha Amar mi nga xamante ne ni moom mooy woote woon bis bi tey tuddee ko journée merci ginnaaw bi ñu génnee si samedi bi passé si journée culturelle Darmanko yi. mu nekk euh, mën nañ ko woowee coordinateur bi parce que su ko neexoon tey woote journée maamam wala mu woote ay guddi maamam mais daf ko préféré woote ko journée Darmanko yi kon képp kuy Darmanko rek sëñ Moustapha Amar yow la ko defal ndax taxawaay bi mu si am moom la war Darmanko képp kuy Darmanko si réew mi. léegi nag bu yàlla defee responsabilité yooyu yëpp wëlbati ko nekk si ndoddam nekk si loxoom nekk si ay tànkam mu koy doxal di ko coordonné kon dañ koy sant di ko gërëm di ko wax ni vraiment. fierté la si biir famille bi parce que sañ sëñ Moustapha vraiment nit la koo xamante ne nii nit ku yàlla baaxal la nit ku am kóllëre la nit ku am pas-pas la nit ku am diine la nit ku am yërmande la te loolu dafa am solo si si si si si biir dund ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñu bind ñëpp bay mission bi lu muy rëy rëy rëy si moom yàlla ba mu koy yebal dafa ne ko wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin donc yebale wu ma si nit ñi lu dul nga nekk seen yërmande. donc sëñ Moustapha Amar nag loolu lañ gis si moom yërmande képp képp képp képp lay dox donc ñu ngi koy ñaanal lépp li nga xamante ne nii naal na ko si bis bi lépp li nga xamante ni mi ngi koy woote di ko familiariser si famille Darmanko bi ak si Sénégal bi yëpp yàlla na si am lu kawe njortam di xamal ni réew mi nag ñëpp dañoo soxla ku mel ni Serigne Moustapha Amar mi borom Thiès ñi ngi wax autorité yi Sénégal ñëpp ku ci waay mën a jow jàppale ko mu jàppale ko ndax moom kat jàppale ko mooy jàppale Sénégal parce que stabilité réew mi rek si lay dox loolu lañ amoon si luñ siy dolli ñu ngi sant bu baax ñu ngi gërëm jërëjeen jëf. asalaamaaleykum wa rahmatulahi ñu ngi leen di nuyu bu baax di baalu ñëpp tey baal ñëpp di am mbégte eh, jàkkaaroo gi yéen ñi nga xamante ni yéen a ñuy suivre di Thiès Info. tey nag ñu ñëwoon fii ginnaaw bi nu passé grande journée culturelle manko bi tey lañ ñëw fii le 30 décembre woote woon eh, une euh, de remerciement laa ko mën a tuddee booleeg mbokk yi di leen sant ak gërëm ci. ni ko sëñ Fallou waxee rek maay nit koo xamante ni damay bëgg lépp lu ma def lu nekkit rek dama ciy ànd ak samay mbokk ànd ci taalibe yëpp looloo waraloon tey ji ñu wootee jotaay bi gis ngeen ko. kon ñu ngi leen di sant bu baax di sant bu baax a baax a baax a baax ñi nga xamante ni ñoom laa ci àndal ñëpp nag waaye di am mbégte ci sëy Latir bi nga xamante ni waxoon nañ ko sax mu ñëw ndax bokkoon nañ si ñi nga xamante ni bis bi ban tàmbalee ba léegi bis bi da ci ànd ak ñun première édition ba nii lépp lu woote mu ànd ci ak ñun bokkoon si ñi nga xamante ne daf koy sargal ci journée merci bi nga xamante ne euh, tàmm nañ ko di ko defee Touba chaque année waaye lii nag une première la une première dans l'histoire muy première édition ma wootee journée euh, une nuit de remerciement euh, loolu nag yaakaar naa mi ngi njëkk am mais après loolu dañ daan woote journée merci loolu nag Touba la daan amee kon bu ngi ciy profité ko di ko ci sant moom Seye Latyr di sant nag mboolem mbokk yeeg taalibe yi yëpp àndoon ak ñun ci bis bi. Euh, leen ci kii rek mooy ginnaaw bi nu jógee ci grande journée culturelle Darmanko euh, jógee ci bis bi nga xamante ni moom lañ doon def muy nuit de remerciement. ñu ngi doon waajal bis boo xamante ni peut-être euh, Touba la mais loolu egseegul waaye avant loolu am na bis bu mag boo xamante ni mi ngi amee ci jéemul au village. Euh, di màggalu jéemul màggal goo xamante ni nag 16 euh, kilomètres la de Pekes sunuy famille ak sunuy mbokk ñoo koy def ñu ngi ci woo ñëpp di leen ci di leen ci di leen ci invité di ci woo ñëpp nag. ginnaaw loolu nag bu nu bu nu jógee ku ne xam na ni candidat la woon à l'élection présidentielle te ku ne xam na ni wax dëgg yàlla am yéen a ngeen noonu gis samay dugg ak génn ak yooyu. ba finalement dama rejoindre Amadou Ba ginnaaw bi ma defee conférence de presse Amadou nag li tax ma rejoindre ko ci ay région yu bare taxoon ma rejoindre ko parce que boo dee citoyen bokk ci réew mi am ay candidat euh, ami parrainage euh, ba dernier moment it euh, da nga am nooy def soit que da ngay da ngay da ngay matal nga dem mataloo dangay ngay jéem a coaliser dama coaliser ak moom nag ànd ak moom ngir intérêt Sénégal ma gis ne jàmbaar la ci réew mi macha allah. te it wax dëgg yàlla am gis nañ liggéey bi fi président Macky Sall def ma jàpp ni moom mooy ki ko mën a mën a mën a jàllale te gis naa ci moom ak yaru gis ci lépp ma fa yéene ànd ak moom nag jàppale ko ci campagne yi fii ci ci Thiès et partout au Sénégal et même à l'extérieur ànd ci nag ak ay ministres am yoo xamante ne au moins à tout moment ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ciy jox di ci dox liggéey bu am solo ngir Amadou am ndam ku ci mel ni le ministre Oumar Youm ministre des for armées Euh, espèce conseil spécial monsieur Mankeur Ndiaye ñooñu it dañ ci ànd ak man taxawu ci ngir ñu jàppale euh, Amadou Ba bon fii si Thiès nag bon bref am na ay autorités yu bari yoo xamante ni euh, tey jii xëy na yëgoon nañ bis bi mais xëy na xat na ku ci mel ni Ablaye Dieye à tout moment mi ngi ànd ak ñun ak ci sunu événement bi. Euh, ki nga xamante ni mooy Maley moom it wax dëgg yàlla am waxoon nañ ko ko mais xam naa ni xat-xatu jamono moo waral xëy na ñëwul ñoo it ñi nga xamante dañ ko bëgga jàppale jàppale Amadou Ba jàppale ko liggéey ci nan ci ànd ñun ñëpp rek doon benn saytu doon. ñu gën a boole doon euh, ah, en tant en tant fi ma bokk man laa wax quoi xëy na nag waxuma keneen ak keneen mais en tant fi ma bokk moom. dinaa def sama kent laa kàntan ba yàlla def mu am ndam dinaa ko jàppale ci zaar jàppale ko ci baatin foofu daal laa amoon ci lu wax du yemuma Thiès rek mais partout au Sénégal et même à l'extérieur asalaamaaleykum wa